te di la baalu te di ñaan ñu baaloonte ak euh, wax dëgg yàlla di leen ñaax à ce que ñu baaloonte te mu wóor ci ñun mu nekk lu dëggu ci ñun euh, ñu jàngat lu bari bari bari te xam ne lislaam tey amatina doole lislaam amatina beneen victoire yàlla nañ ko fekkee ay ati ati at ah tey nag euh, bis yu mel nii ñu xam li ko waral ñu yem ca loola ah, bu ci kenn def loo mënut bu mu tax benn diggante di yàqu rawatina les couples nu ñu bëggalante nag waaye bëggalante du ci koom-koom du ci poos du ci kenn di teg sa bopp loo àttanul wala kenn di teg sa moroom lu mu àttanul bari na loo mënut bul ko teg jàmbur bul xaw yi sa sutura bul xaw yi tamit sa sutura ki nga xamante ni moom ngay wuti xamoo ndax mën nga fa am déet dañuy garder suñuy dignité bu baax wàccoog yàlla mettiwul bu ñu ko yemalee foo ko yàlla rek euh, lam ñu lam ñu ci wax ñu def loola wax dëgg yàlla euh, defe naa ne di nga am jàmm sa moroom am jàmm euh, ñi ngi jëm à travers ay élection te ku ne xam na ni élection fii ci Afrique surtout da fa mel ni dañ ñoo gën a yeewu waaye bu dee Sénégal ñun ñëpp a fi dëkk tey benn japonais du jël réew mi benn chinois du jël réew mi ku mu mën a doon rek sénégalais ñu xam ni nguur yàlla euh, nguur gi ki nekk ci bopp réew mi yàllaa koy tànn loolu tànneefu yàlla la du tànneefu nit kon rafet ca ndax tànneefu yàlla danga ci am ànd ak moom nga rafet ca donte ni nag ci ñun la ko jaar jarut xeex jarut xuloo bu mu yàqal suñu liggéey bu mu yàq suñu jot benn dimanche la dañu xaar ba mu jot ñu dem kenn ku ci nekk ki nga bëgg denc ko sa xol boo demee nga def la nga war a def pare dem toog sa kër dem ñibbi à de ce moment nag je pense que ni dootuñu xuloo dootu ñu werante dootuñu xeex ci biir nag Sénégal la waaye wax dëgg yàlla ñu ni neen la ko bu mënut wala mu am fu mu foo xamante ni mëneew fa waaye waaye man xam naa man mën naa naa boole li ma xam ñëw jox ko wala yéene ko ko bu ko defee rek jàmm am ci réew mi. yéen ana fu ma leen di jëleeti yéen ana fu ma leen di ameeti fondation Kër Rassoul